Euh, sëñ bi Djibril ñu ngi lay nuyu di la ci réew mi. voilà maa mhm. mm, nga bokk ci pacte muy plateforme des acteurs de la société civile pour la transparence des élections justement euh, ñu génn ci ay jongante euh, ay élections tey nan nga jàngatee organisation justement élection yooyu la. waaw li ñu ko mën a mën a yi mooy que Sénégal dafa tàmbalee woote bu yàgg yàgg yàgg yàgg réew la moo xam ne tàmbale na wote euh, ci mille huit cent ak yi mille huit cent quarante huit mm-hmm. xam nga ne loolu kon yàgg na ah waaye li ñu noté mooy que saa su nekk bu amee élection dafay am ay di yi feeñ euh, ci euh, processus électoral bi ci mm-hmm. scrutin bi mm-hmm. surtout ci scrutin bi maanaam gis nañu ñoo xam ne Euh, fa ñu waroon a wotee euh, dañ leen a déplacé yóbbu leen affecté leen feneen te ñoom yëguñu ko te demandé wuñu ko. Mhm. am na ñoo xam ne seen carte électeur ba ñu ko demee di jëli ñu ne leen seen carte nekku fi gis nañu fu mel ne Joal euh, lu toll ci juróom-ñeenti téeméeri carte ñu ne xamuñu fan la nekk. Mhm. seen borom mujj ñoo gis nañu ñoo xam ne am nañu carte électeur bu ñu demee ci seen bureau de vote ñu ne leen nekku leen ci liste bi hmm. ah euh, gis nañu également ay bureau de vote yoo xam ne dafa au lieu mu ubbi huit heures juróom-ñetti wax ci suba dem nañu ba euh, fukki waxtu ak ñaar maanaam midi pour ñuy soog ubbi gis nañu ay bureau yoo xam ne aussi bulletin yi dafa am candidat yoo xam ne seen bulletin de vote dañoo dem ba ci biir journée bi Euh, ñu ne seen bulletin dafa manqué wala enveloppe yi ñoom manqué gis nañu sax euh, foo xam ne fii si Grand Yoff euh, salle bi ñu doon vote ay briques lañ fa teg jël bulletin yi tekku ci ay briques. Mm-hmm. loolu nag dafa nekkul lu rafet lu baax ci démocratie bu mel ne Sénégal boo xam ne bii ba mu tàmbalee voté léegi. Euh, ëpp na un li ni mel yéen en tant que société civile euh, nga xam ne da ngeen di yëngu ci wàllum transparence ay élection lii di manquement yépp ngeen saytu euh, da leen di servir de cahier de charge su ko defee ngeen jébbal ko autorité yi ñu xool nan lañ ko mën a yokkee ci li nga xam ni moom mooy anam gi ñuy organiser élection. waaw waaw loolu effectivement loolu ci la ñu mës a Euh, loolu def nañ ci plaidoyer bu yaatoo yaatu ci at yi yëpp weesu ànd nañ ci ak yeneen acteur politiques yi également euh, te loolu moo tax finalement gouvernement wu Sénégal accepté euh, ci ndimbalal USAID mm-hmm. recruter ay audi ay experts pour ñu ñëw càmbar processus électoral bi mm-hmm. càmbar fichier électoral bi Euh, wax ñu ay ndénkaane ak ay saafara yoo xam ne bu ñu ko jëfandikoo mhm. euh, maanaam euh, matadi yooyu yëpp erreur yoyu ak jafe-jafe yeeg dysfonctionnement yi dinañ ko dinañ ci mën a génn définitivement. Mhm. alors loolu nag experts yi def nañ ko ba pare. Mhm. li des rek mooy que recommandation yi ñu ngi fi ñu tëral benn kuréel boo xam ne moom dana ànd ak administration bi. ñu ma seet euh, euh, recommandation yooyu dénkaane yooyu nan lañ koy euh, jëfee ba dugal ko ci système électoral bi ba nga xam ne danañu am système électoral bu mucc ayib. tey élection yi bañ ko dalee waaj euh, yàgg na. jàpp date euh, annulé ko jàppaat date annulé ko bañ demee ba jàpp date nag am na ay formation ay ndaje yi nga xam ne yéen ñii société civile amal ngeen ko ak it acteurs politiques yi ak ñi nga xam ne ñooy ministère de l'intérieur mais teewul euh, gis nañu ay couac donte am nañu assez de temps pour organiser élection yi ndax yow gis nga ci volonté amal ay élection yi nga xam ne lépp ay wala sax. Euh, dañ koo def rek ngir galgal ñenn ñi. waaw ñun dañu jàpp ne <coughs> euh, dañu dañu jàpp ne d'abord bi dañ ko war a respecter. Hmm. ndax euh, comme ni nga ko waxee. élection yi dàq nañ ko dàqati ko dàqati ko dàqati ko dàq nañ ko ñetti yoon. Hmm. loolu sax indi na loo xam ne lii aussi jaaduwul maanaam mandat bi nga xam ne bu maire yi nekkoon juróom juróomi dem nañu ba taftal ci ba teg ci ñaari at mu nekk juróom-ñaari at. Mm-hmm. loolu ci réew moo xam ne dafay woye boppam euh, démocratie. Mm-hmm. Euh, jekkul jaaduwul. kon calendrier électoral bi dañu ko war a respecter. Mm-hmm. alors beneen bi mooy dafa am lu ñuy woye cycle électoral. cycle électoral boobu daf ci am ñett yoo xam ne dafa am lool solo. mooy planification ak euh, formation. Mm-hmm. ak évaluation mm-hmm. alors euh, planification bi euh, am na parce que gis nañu ne administration bi euh, opération yëpp daf koy dérouler ci benn calendrier boo xam ne euh, dafay am ay délais mm -hmm. yu yu euh, euh, formation bi am na mais li nga xam ne moo moo évaluation bu aussi am na li ma la waxoon léegi experts yi ñëwoon euh, yooyu dañoo évaluer ànd ak acteurs politiques yi évaluer processus bi évaluer fichier bi mais euh, formation bi ni ñu koy defee dafa nekk formation de court terme. Hmm. maanaam dañuy xaar ba élection yi dese tuuti euh, ñu gaawantu former membres yi war a dem ci bureau yi former magistrat yi former. Euh, euh, autorité mm. territoriales yi. Mm. gouverneurs yi ak préfet et cetera. Mm. Mm-hmm. dañu yaakaar ne dañu jàpp ne formation boobu dafa war a doon une formation permanente. Mm-hmm. waaw bu gën a yaatu euh, ba nga xam ne peut-être bu élection yi ñëwee dañuy compléter rek formation boobu. Mm-hmm. su boobaa lay doon formation bu gën a boo xam ne dina permettre. Euh, agent yi nga xam ne yëpp dañuy agir sur le processus électoral mhm. ak ci scrutin bi euh, lépp luy seen wareef lu ñu war a def ñu xam ko bu baax euh, mën ci taxaw bu baax sëñ bi jàpp nañu ne jàpp nañu ne évaluation bi aussi mhm. dafa dafa dafa des ndax experts yi plusieurs fois dañ fi ñëw càmbar fichier bi évaluer ko ànd acteur acteurs yi évaluer bi mujj aussi experts yi ñëw nañu ànd ak acteurs yi évaluer fichier bi évaluer processus bi mhm. mais li des toujours mooy application bi mise en œuvre d'accord waaw alors bi yoon nag yaakaar naa ne gouvernement bi dana taxawal comité de suivi mhm. bi nga xam ne dialogue politique bi recommandé na ko pour que comité de suivi boobu nga xam ne moo ëmb acteurs yi ànd ak administration bi pour que recommandation yi digle yeeg santaane yeeg ndekkaane yi experts yi yëpp def bi ñu évaluer ba pare. Mhm. ñu seet nan lañ koy jëf jëfee. Mhm. jëfandikoo. gis nañu opposition bi nu mu taxawee ci li nga xam ne mooy euh, sécuriser vote bi euh, li ni mel ci beneen côté bi euh, dina jéggi dayoo gis nañ ko tamit partout muy dakaar muy it ci yeneen diwaan tey nan lañ mën a def ba dépasser foofu ba tey bu ñu amalee élection nit ñi ñëpp seen xel dal. waaw loolu même auditeurs yi ñëwoon nga xam ne dañ doon càmbar. Euh, fichier yi mm. wax nañu ci parce que gis nañu ne dafa am rupture de confiance. Mm. maanaam ñàkk ñàkk volonté bu dox diggante autorités yi nga xam ne ñooy organiser élection yi ak acteurs politiques mm. alors ndénkaane bi ñuy joxe euh, pour ñu wan ko euh, def mu nekk solution. Mm-hmm. mooy que ki nga xam ne moom la ñuy nommé mu war a organiser élection yi mu doon koo xam ne maanaam farul fenn. dina am autonomie par rapport à l'administration par rapport au gouvernement mhm. et par rapport au partis politiques mmh. alors euh, mhm. yaakaar naa ne loolu aussi ci recommandation yi yi génn ci dialogue politique bi si la bokk euh, bu ñu ko appliquer euh, très certainement ñu dem ba dootul laaj opposition bi ñuy wax naan dañuy sécuriser seeni wat ak yooyu parce que loolu bu ñu koy wax ça veut dire que dañoo woo amul kóoluteef ci ñi nga xam ne ñooy organiser élection yi ak ni ñu koy organiser. kon daal jot na selon yow ñu daal di jël ki nga xam ne farul fenn euh, mu daal di euh, organiser élection yi comme nañ ko gisee woon ci jamonoy Wade. voilà loolu effectivement loolu jot na sëkk euh, pour que gouvernement bi jëfe loolu. Hmm. alors mu tànn parce que ci effectivement ci ci jamonoy président Abdou Diouf jëloon na. Euh, président euh, le général Lamine Cissé. Mhm. nga xam ne farul fen militaire la mu organiser élection yu mucc ayib euh, Abdou Diouf ye ko Wade ñu gagné ñëw toog réew mi nekk ci jàmm. Mhm. ci jamonoy Ablaye Wade aussi 2012 Ablaye Wade taxawal na ministère chargé des élections. Mhm. ca bopp ba mu nommé fa l' inspecteur d' état mu organiser élection yu mucc ay ñu gagné Ablaye Wade euh, ki euh, Macky Sall daal di falu daal di toog réew mi nekk ci jàmm waaye gis nañ ne depuis 2012 ba léegi alors loolu euh, mënta am loolu nag moom moo indi moo indi xiiroo beeg ŋaayoo bi tension yi ak jàppante beeg violence yi yu bëri n'est-ce pas loolu moo ko indi. Mm-hmm. te experts yi nga xam ne jóge nañ ci bu yàggal yàggul. Euh, ñoom gis nañu loolu ba joxe recommandation boobu nee nañu vraiment alors euh, li nga xam ne moom mooy nekk saafara si mooy que ñu élire ñu nommer euh, koo xam ne kii day tëddee njaaxaanaay day am autonomie par rapport à la tutelle n'est-ce pas pour mu organiser élection yi. bu mm-hmm. ko defee waaw sëñ bi ñu ngi ñu euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo euh, les euh, primo votants ñoom ñu ci bëri la leen taxoon a jóg ay weer ci ginnaaw maanaam ñu dem defari seen i carte électeur pour bu jotee ñoom it ñu vote ñu ci bëri amaane na ne plutôt dañ leen xañ li nga xam ne mooy seen droit civique li tamit nan nga ko gisee. waaw primo votants yi xam nga li ci xew. mooy que année électorale bu nekk dafay am li ñuy wax révision euh, exceptionnelle des mhm. listes année ordinaire euh, année boo xam ne ordinaire la amul élection dafay am li ñuy wax révision ordinaire mhm. boo xam ne day commencer premier février euh, février ba 31 juillet mhm. alors ñëpp ñu nga xam ne matal nañu am nañu âge yu voté 18 ans mën a dem bindu ji waaye li xew mooy que mille 2018 amul révision ordinaire. Mm-hmm. Euh, deux mille vingt amul révision ordinaire. deux mille vingt et amul révision ordinaire. te at mu jot bu ñuy def révision ordinaire normalement lu toll ci trois cent wala trois cent cinquante mille. Mm-hmm. Euh, jeunes danañu ñëw. ak moins jeunes disons danañu ñëw bindu. Mm-hmm. alors donc boo gam-gamlee loolu deux mille euh, dix huit deux mille vingt deux mille vingt et un ah, dafay nekk day passé un million. yoo xam ne ñi ngi doon xaar ah, pour inscrire. Mm-hmm. Ah, mais bi ñu ubbee inscription yi weesu révision bi durée bi dafa gàtt ba nga xam ne xale yooyu yëpp mënuñu woon dem inscrire. ensuite comme léegi dañu exiger que booy inscrir il faut nga am carte d'identité moom ngay inscrire. Mm-hmm. xale yooyu comme amuñu carte d'identité euh, ñu ci bëri euh, dem nañu police pour ut carte d'identité te laataa ka seen carte boobu di génn fekk commission bi euh, jeexal na tëj nañ ko. Mm-hmm. un mois la waroon diire ñu tëj ko kon nag ñi jot a bindu rek ñu ngi toll ci quatre cent vingt cinq mille et quelques. Mm-hmm. là où vraiment on attendait plus d'un million. Euh, de jeunes euh, yoo xam ne primo votant pour ñu inscrire. Hmm. donc loolu déjà à ce niveau-là déjà euh, on a privé beaucoup de jeunes. Euh, qui auraient pu s'inscrire et avoir leur carte pour pour voter. rax si dolli am na ci ñoo xam ne am nañu seen carte bind nañu waaye ba ñu demee di jëli seen carte gisuñu ko fu mel ne Joal Fadiouth lu toll ci neuf cent mille neuf cent cartes Euh, disparaître na kenn xamul fan la nekk. alors am na ñu yore seen carte également bi ñu duggee ci salle de vote yi alors ñu ne leen seen tur nekkul ci li yi loolu nag c'est une violation bu grave la boo xam ne bii euh, dafay violer euh, le droit de suffrage euh, des citoyens et notamment des jeunes des primo-votants te loolu mooy jur frustration yu bëri ci jeunes yi te mooy indi lu mel ne événement yi fi xewoon bu yàggul ay mois de mars. Mm-hmm. voilà mm-hmm. donc nit ñi da nga jox seen droit ñu exprimer wu euh, démocratiquement. Mm-hmm. bu ko defee loolu dina tax ba euh, violence yu bëri ak. Euh, en tout cas conséquences yu bëri ñu mën ko ñu mën ko éviter. Djibril Gningue ñu lay jaajëfal bu baax a baax. waaw maa ngi leen di jaajëfal aussi di leen gërëm di leen sant ci invitation bi.